waay jërë ngeen jëf mbokki internet allo Sénégal gis ngeen tey fii nga xam ne fi lañ ne Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar waaye nag ñu ngi fii ci Mambara seet si ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ay Charity nekk ci seen quatrième édition di joxe ay ndogu boobu ba léegi tey nag mooy seen deuxième et dernier jour ñu di koy def ñu toog ak nag la présidente wala sax la fondatrice muy kan muy Aïcha Rasoul ñu bëri xam ko ci TikTok bi maanaam ñu bëri gën koo xam fan ci série euh, Virginie bi nga xamante ni mi ngi doon am fële ca TFM balaa boobu dañ koy bàyyi moom Aïcha mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan Aïcha bismillah. salaamaaleykum yéen ñëpp ñu ñuy seetaan na ah ma dolli. waaw <laughs> ah, wala dog bi moom dog daa dogagul ba léegi. xam naa li ma dogagul la. <laughs> Aïcha gis nañ ne initiative bi rafet na mais mm. man mi àndoon ak yow ci dem beeg dikk bi lenn laa lay njëkk laaj. Mm. Aïcha est-ce que woor nga tey. waaw micro bi. woor ndax dama gis énergie bi nga àndal dégagement bi ànd ko xol mu féex mu gis ma benn yoon sa kanam nga nga nga sentir ci xiif wala mar Aïcha est-ce nga tamit. lu baax boo koy def. Mhm. da ngay fàtte sa xiif fàtte mar. dëgg la tellement que yow da nga naan sama mbégte mooy nit yi kontaan. Mhm. sama mbégte mooy xale yi kontaan yow dootoo nekk sax si kii boo xamante ne tu vas dire que man est-ce lekk naa est-ce que naan naa da nga koy fàtte. Mhm, est-ce dog la ba léegi sax. waaw dog naa moom. mais euh, initiative bi fu mu jugee parce que jugoo jug rek Aïcha Charité bi taxaw jugoo jug rek commencé distribuer ay ndogu ci daara yi daara ci ak yooyu initiative bi la jugee. Euh, naturellement dama ko dund parce que man lépp lu nga xamante ne nii dund naa ko rek damay bëgg di ko réaliser. Hmm. damay bëgg di ko def noonu la ñëwee. Hmm. ndax dama toog benn jour ndogu. xam nga micro bi. pardon dama jug ndogu xam nga. lépp lu nit bu baax di ndogoo ma teg sama taabal ndogu et tout après ma xalaat ne tey peut-être sama ay rakk wala am na ñoo xamante ne nii. amuñu ko. ñu ngi à côté te voilà après ma jóg def ko naturellement. Mhm. Mm. te boobu ba léegi ay tànki kanam rek nga ci gis. boobu ba léegi day gën a yokk moo tax fu ñu dem si sëriñ bu ñu dem dañuy wax. ni ngeen fi ñëwee daaw ak ni ngeen fi ñëwee ren ute na. Mhm. ndeysaan mais nga ànd ceeg sa ay xarit. def mm. euh, groupement bi nan la taxawee. man xawma sax yàlla xam na ko parce ñoom dañuy ñëw jàpp si am na ñoo xamante ne bi nga leen di gëj a dégg sax day yàgg mais dès l'instant que ñu gis sa kii rek nit yi ñoo lay bëggal seen bopp ñooy ñëw participer si am na sama xarit yoo xam ne depuis une semaine ñooy nekkandoo marché dem dakaar jóge ñëw jënd bagage yi te demaluma leen fenn waxaluma leen dara mais seen baaxaay la rek mais bu ñu concentré woo ci événement bi événement laa ko mën tuddee parce que seen Thiès léegi dañ koy xaar ndogu Aïcha Rassoul yi dañ koy xaar événement la léegi mm. léegi mu nga def ko ren deux jours mm-hmm. gis nañ ni nga xamante ni noonu la méttee financièrement dafa métti mm-hmm. est-ce que am nga ñoo xamante ni ñu ngi la ciy jàppale ñu ngi sa ginnaaw autorité Thiès yi wala sax sa ay xarit wala ay jegeñaale ñoo xamante ni ñu ngi ciy teg loxo wala sax mm-hmm. parce que euh, lépp li nga xamante ne ñu ngi ko siy def d'abord. Mm-hmm. dañ si njëkkee suñu bopp. mooy njëkkee suñu bopp mooy ah mën de daaw defoon naa li ren dinaa fexe loolu ma def ma doublé ko kon si année bi yëpp yow déjà di nga ko bàyyi xel di nga ko bàyyi sa bopp après du si ñàkk am sa ay xarit wala sa ay mag yoo bokkal ndey ak baay wala ñoo xamante ni dañuy gis affiche bi wala na li yaa ngi def lii nangam. Mhm. ah maa lay yónnee nangam. comme xam nga mhm. jàpp si ee ñu def ko. Mhm. loolu la rek. boo doon xool financièrement lim la coûté deux jours yi nii. xaw ma vraiment xaw ma parce que man bu may def du ma calculer. du ma ne nangam la. man damay damay naa ma yow dof buy def nga. man damay bàyyi muy dem rek. est-ce que tey xam nga nit buy def day am objectif danaan renkat bëgg naa def cent pots wala cent barquettes wala mille barquettes est-ce que tey objectif boobu noonu nga amoon ci ren atteindre nga ko. ëpp na ko ëpp na ko parce que dañuy jënd di jëndaat su ma tiimee xool rek dawalaat daw jëndaat jënd du mais doo xam sax. Mhm. parce que yow gis nga ñaari fan yombul. waaw doo nelaw. yaa ngi xool nan lay baaxee yaa ngi xool li yaa ngi xool la donc mhm. ñun suñu mbégte mooy na ñëpp am. bu ñu ko mënta matal. Hmm. mais ban message ngay lancé autorité yi nga xam ne ñu ngi Thiès te war a mën a ñëw fekk si la ci combat bi parce que combat bu noble ngay mëne actuellement. ah maa ngi leen di woo ñoom ñëpp aussi su fekkee mën nañ si jàpp te yàlla tax. Hmm. jàpp ñu si pour pas seen tour dem wala seen ay affaire de politique non non hmm. ñun dañ koy def ngir yàlla defuñu ko ngir ku lu neex kenn defuñu ko ngir sant si kenn wala gërëm si kenn gërëmu yàlla lañ ci soxla. voilà léegi Aïcha dañuy jël euh, wàllu wàllu événement bi tey. Mhm. daal koy teg noonu daal di waxtaan ci yow. Mhm. yaa ngi débuté ci TikTok. Mhm. est-ce que mën nga ñu wax sa ay début ci TikTok parce que gis nañ euh, bi ngay commencé TikTok ba ñëpp di la xam boobu ñu bëri sax xamaguñ application bi di TikTok. en fait man moom comme ni ma koy waxee tout le temps rek TikTok dafa nekk loo xamante ne euh, yàlla moo ma ko man dama naan nattu yàlla la. Mhm. parce que tey sama famille ñoom pour ñu dugal statut sax problème la waxuma la ak nag dugal TikTok. Mhm. comprendre nga mhm. donc loo xamante ni la tey yàlla moo ma ko nattoo et nag nangu naa ko. ndax man soo xoolee siiw sax déjà dama ko bëgg. parce que man damay bëgg di làkkatu su ma ñëwee ñëpp di kii di wax damay sëgg damay daw. donc voilà après nag yàlla mooy def dara si nit mënuma si dara quoi. voilà léegi est-ce que début bi sa ay parents nuñ ko gisee. nga gis ñaari nit ñett romb naan kee du Aïcha sa écho yi di daw seen kër ñu naan Aïcha gis nañ ko ci TikTok bi gis nañ ko ci plateforme yi nii début bi nan la nekkee woon ak sa ay parents. man xam la lay may suñ génnee si mbedd bi rek jékki saa daan ne Aïcha mi ngi ne sama yaay ne moom ñi est ce que wér nañ ñu naan Aïcha ngi ne. tellement que ñoom lijjanti léegi su ma ànd ak sama ñuy wax eh, eh, affaire yooyu noonu ñoom ñëpp dañuy àndandoo rek ci suuf parce que tàmmuñu lool man sax mhm. tàmmuloo soo ma ko waxee lay taxaw di la ree mhm. donc ñu ngi koy dund naturellement sant yàlla mhm. voilà léegi euh, nga nekk nga nekk une star fii Thiès mën nañ ko wax euh, nat ngay dundee retour yi ci fii Thiès gars yi nga xamante ni bëri na ay bëri na ay icône ci wàllum art ci wàllum euh, métier bi di théâtre man moom franchement euh, man xaw ma parce que man dama naan man lan laa defal nit ñi man mosuma dégg message bu ñaaw mosuma gis commentaire bu ñaaw bu jógee si man. Mhm. man a chaque fois encouragement yi ñooy ëpp demal li yow gisagoo dara loolu rek laay laay laay laay. mais mais commentaire yooyu noo koy dundee parce que. bëri na ay kilifa yoo xamante ni dañ lay suivre. Mhm. da ngay gis am na ñoo xamante dañuy dem ba. Euh, mhm. di dugg di commentaire di la ñaanal. billaahi mais mbégte rek ak contentement di leen ñaanal ñoom tamit lépp lu ñu may ñaanal wala lépp ñu lu ñu may waxal yàlla na leen ko yàlla suñu borom bi delloo fay leen ko si barke Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. Euh, mën nga ñoo wax sa integration biir Marodi naka la demee ndax euh, saison 3 bi lañ lay doog a gis ci série Virginie. <laughs> waaw Marodi moom. dama leen a jooy bañ sonn déjà. Ah. parce que à chaque fois moo xam parce que ñoom bi may ñëw biñ may woo man leen man defuma série de man hmm. damaa ragal man bëgguma def ay affaire de série hmm. ñu ne ma lan moo tax man leen ci man bëgguma def après si la ma chingom woowee hmm. ne ma mais booy demal rek àdduna gis nga yi yow séw nga ba pare ne demal rek affaire yooyu noonu man man dama ragal parce que dès l'instant nga dugg si monde cinéma rek sa vie mën na changer complètement tey mën nañ la waxal lii dugg fii génn fii yi nga mënoon def sa vie sax dootoo ko mën def mën ma mais loolu loolu avant que ngay dugg TikTok la waroon nekk mais comme léegi nice demal rek ma xëy dem casting bi ma demee euh, ma fekk fa Pod Zé ak kii ñu def casting bi ba pare léegi ma ñu ni ma noo yow dañu lay jël affaire yooyu noonu Pod moom tamit nit bu baax ma jekk saay rek di jooy ñu ni ma <laughs> da ngay jooy ma leen noonu foog ma dem séeri bàyyi naa bàyyi naa ñu waat ñëw kaw ma fay sama téléphone ñëw tëdd si kër gi deux jours ñun ma yow dañu war a tourner suba mais il faut nga ñëw man leen si man dama ragal dama ragal di wax di leen kii ñuy woo te di wax. Mhm. il faut ñu wax ak sa yaay affaire yooyu noonu man la ok y' a pas de souci. Mhm. léegi nag par la suite ñoom tamit nekk ay nit yu baax conseiller ma ne ma gis nga milieu soo si nekkee su fekkente ni da bëgg a nga bon su fekkee da nga bëgg a baax nga baax yow yaay choisir parce que <clears throat> pardon lépp si éducation bi lay nekk. Mhm. lépp dafay nekk loo xamante ne nii par exemple tey euh, si yow lay dépendre ne ma tey soo tournewee wee nga wàcc nga ne da war a ñibbi Thiès yow doo xalaat. dem ay resto doo xalaat mm-hmm. dem si yoo xamante ne dafay ñàkk mm-hmm. fayda mm-hmm. donc après mu dundee ko noonu ñu passé ko si jàmm ñoom tamit vraiment maa leen di remercier te léegi da am tur boo tudd muy pot mu nekk directeur artistique fële ca Marodi for nañ ci bébu béykat yi ku la jàppale la pour nga mën a intégrer milieu boobu noonu du milieu artistique euh, Pod nag franchement bi may ñëw Marodi xamul woon ne sax man maa war a def casting bi waaw léegi yow sama micro bi yow loola ci loola ci naqari wala bu ne bee la neexul waaw <laughs> na bi may ñëw di xamul woon ni sax man maa waroon ñëw def casting bi. mais après nag par la suite euh, tourné nañ ba commencé tourné lu bari amantawuñ sax numéro. Mhm. après nag par la suite su ma amee ay détails su ma yónnee ko tonton jooyee rek mënu ma lanati <laughs> la. Mhm. <laughs> mais moom tamit nit bu baax la. jàppale mhm. na ma si lu bari su ma nee jàppale na ma si lu bari mooy. tey am na niveau boo xamante ne bi ngay dugg Marodi amoo ko mais après boo génnee rek. di nga man wax nii sax daawu mu ko def man su ma taxawee si écran nii damay lox ba ni may tur mais loolu yëpp dañu ko dindi si man mhm. jàngal ma naka la ñuy waxee naka la ñuy defee lii lii ak lii ak lii nii la ñuy def ba tey jii vraiment macha allah maa ngi koy sant ñoom ñëpp ak Zé tout le monde Marodi ñaata lañ lay fay ah yow sa salaire ñaata la man aw ma man tamit aw ma salaire Marodi ku fa ne am nga salaire man aw ma salaire <laughs> dañ dañ ni dafay dafay jël ñi nga xamante ni xam na ni siiw nañ xam nañ ne am nañ am nañ benn popularité bi ñu jël leen joué leen ci série sans pour autant ñu fay leen li nga xamante ni moom moom mooy see moom lañ see moom lañ moom moom lañ tollool daal ay rumeur la dama ko dégg dama la koy rapporter yow yaa fay nekk yow yaa fay liggéey man man je dis non parce que tey mhm. dafa am ñoo xamante ni da ñëw ne dama bëgg a siiw comprendre nga. Mm-hmm. dafa am ñoo xamante ni pour ñoom ñu dugg ci série wala ñu feeñ rek jaral na leen lu nekk. Mm-hmm. mën nañ leen sax déjà bañ a fay. comprendre nga mm-hmm. mais tey par exemple yow soo xamee ne carrément t'as pas besoin de ça da nga ko def métier da ngay liggéey dañ lay fay nga waxale sa ay contrat ne leen lii ak lii laa mën ñoom tamit ñun ne lii ngeen mën ba keroog ngeen di juboo ñu fay la sa xaalis nga dem. te amuñu benn problème wax fa dëgg na xel. mi ngi noonu entre parenthèse la woon pour waa Marodi man tamit ma bëggee lan dama leen doon tooñ rek léegi. Euh, am na ñoo xamante ni gis nañ sa diggante ak ki nga xamante moom mooy jaamaan. Mhm. gis nañ leen est-ce que mën nga ñoo wax d'abord sa diggante ak jaamaan. Mm, dara ça va ay xarit lañ nice. Mhm. fu ngeen xamante. loolu la fi indi charité bi. waaw moom la wax. <laughs> léegi dañ gis ni euh, sa ci euh, clip bi ci nga ci nga ci nga gagné benn popularité bi ci lañ la commencé xam lu bëree bëri lan mën nga ñëw wax sa digganteek moom. waaw peut-être tamit lool la. Hmm. parce que moom hmm. tamit jàpp na si vraiment nit bu baax la maa ngi koy remercier. Hmm. léegi euh, fi may daanale mooy Aïcha Rassoul. ak quand le mariage. bientôt parce que instant yi moom bëgg naa kii xam nga. bëgg nga bëgg naa dem sëy xam nga def ay kii. yooyu ene wala moo jot na de jot na de. voilà il faut def ko. balaa ene di xeewi. <laughs> léegi euh, damay daanale ak euh, parce que gis nañ ni toog toogaay bi xaw na yàgg. Mm-hmm. sa diggante ak euh, benn star bu nekk Thiès. Mm-hmm. parce que gis nañ deux jour yi star yi nga xamante ni ñëw nañ fii mm-hmm. ay waa dakaar lañ oo ñoom Binta. ñoom ñeneen ak ñeneen te gisuñ booba léegi ki nga xamante ni moom mooy Diarra bu Thiès sa diggante ak moom. jaara mag moom amul benn détail parce que tey. sama li ma waxloo ak moom woo ko nekk damay def sama journée. moom tamit mu woo ma ne day def journée. loolu la rek. Euh, peut-être dafa amul temps dafa amul jot mais incha allah bosom bu ma si woowee dama ciy dem. Hmm. incha allah bu la ci woowee. incha allah léegi gis nañ ni euh, ñun ay Thiès lañ doo ay nitu Thiès lañ. Hmm. xam na li xam li li xew fii Thiès. Hmm. jaara dafa nekkoon fii Thiès nekkoon une star yow nga ñëw. seen mën naa ni seen kii neexoowul ngeen ngeen def ngeen doon ay rival ba tey nga fekk si ko foofu ci série Virginie bi. est mën nga ñoo wax tamit est-ce que du Virginie sax série boobu noonu moom moo Mm-hmm. yée suñu jotee dañuy tooñante nice sérieusement mm-hmm. dañuy nekk wat ci snap yenn saa yi ma envoyé ko ne ko bi waru woon jeex mun ma dina jeex nag affaire yooyu mm-hmm. noonu dañuy amul amul amul détail amul preuve peut dafa am si lu mu nekk nekk Dakar di tourner wala je sais xam nga ba tey jii nit ki mën na euh, koo mënti tey du moom kese laa woo en fait parce que man ñëpp ñi nga xamante ne bokk nañ gis nañ affiche bi woo naa leen dañuy ñàkk jot dañuy ne ci tournage de gauche à droite man tey weekend bi dama am lu ma bàyyi pour mën a def nii lii. Hmm. comprendre nga donc loolu rek lay demee te tey du ñu yor ay. liggéey jàmbur sax. voilà ak ay contrat jàmbur. di ko hmm. bàyyi hmm. mais ñoom ñëpp seen xol ak seen xel fii lañ nekk. vraiment. léegi euh, ban message ngay lancé ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi ci TikTok sax en général. Mm-hmm. gis nañ leen euh, boobu ba léegi ñi ngi jooytu tiktokeur yi tiktokeur yi lan ngay ban message ngay lancé tiktokeur yi yeneen nga xamante ni ñu ngi ci sew yow sew sewaa sama genre. Mm, ban message ngay lancé en général tiktokeur yi boobu. Mm-hmm. parce que tiktokeur am na ñoo xamante ni tak ñu baal ma. TikTok man benn dama ci seetlu dara léegi dafa tax ñu bëri Sénégal ay fecckat lañ bëgg a doon. Mm-hmm. dangay gis koo xamante ni amoon na sax léegi teg TikTok moo tax am na gagné na ci benn 5000 followers wala benn 10 000 followers mm. léegi dafay teg écran am ci koñ bi taxaw di fee ci amatul kersa amatul dara léegi. ah tey man damay wax ne nit ku nekk li mu am envie def wala li mu am envie wax wala fi mu am envie dem nit boobu la concerné a ah, man de li may def ak li may digle mooy nañu def li nga xamante ne nii mooy lu baax di ko fësal tey. ñu àndandoo xeex képp ku nekk di saaga mhm. wala képp képp ku nekk di def lu bon wala képp ku nekk di yàq daru nit ñu buux la tey buñ jëlee ñun ñëpp tourné def lu baax joxe exemple mhm. comme ni ñuy def nii dugal ko nit yi xam ne lii lu baax la ñoom ñu dem ko reprendre ko tey par exemple nga def benn vidéo boo xamante ni yow di nga si jàng man dinaa si jàng keneen dina si jàng tamit mais de telle sorte que am na tamit ñoo xamante ne euh, dañuy fecc fecc la ñu mën mooy seen liggéey dañ koy def pour wane seen talent parce que tey mën nga dugal sa vidéo fecc et tout après benn partenaire wala ne la kat man damay def benn vidéo te vidéo bi il faut mu am fecc nga dem récupérer sa xaalis def li ngay def dem sa yoon noonu la rek. Hmm. man gisuma si voilà. lan ngay tàggatoo Aïcha. maa ngi leen di sant di leen gërëm yow tamit depuis si suba yaa ngi daw di kii xam nga def ni comme ça. Hmm. donc di remercier sama xarit yëpp ñu xam te ne nii jàpp nañ si ak sama famille ñëpp. maa ngi remercier tout le monde vraiment kontaan naa trop. Mhm. merci beaucoup mu mhm. ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu dalaloon ko moom Aïcha Rassoul ngeen gis nag ni nga xamante ni noonu la taxawoo tey sonn na ci nag ñun ñoo la koy ñun ñoo leen koy seedeel parce que yombul li nga xamante ni yëkkati na ko sumb ko ba daal ko tey sumb na ko waaye naan na ko Cees waa yëpp génn nag ànd ak moom jàppale ko parce que seen doom la waaye nag moom moo leen ko ji li tax euh, moom bu yëkkat bu yëkkatee dara rek Cees yëpp ne ko tegal. parce que ñun ñoo la ko war a yëkkatil ñun ñoo la koy jàppaleel ku songee dara Cees waaye ñoom ñoo ñëw sotal ko dara sotal ko loolu c'est parce que moom moo leen war moom moo leen wan ngor moom moo leen wan euh, li nga xamante ni tax na Sénégal Cees waaye jàpp ko te mooy yar gi en général en quelque sorte sax mun naa wax mi ngi noonu Aïcha Rassoul ñu ñaanal ko li nga xamante ni moom la jublu mu daat koy daat koy daat koy yeggale yeggale ak sagoom yeggale ndawam ëllëg nag xëy na ñu ngi koy xaar ci yeneen facette ndax xam ndax xam nañ ni am na lu nekk ci moom mu ngi noonu xam naa mariage bi nag di ngeen ko xaar xam naa ki koy takk xam naa ni léegi may gu njëkk gi ñëw xam naa ni léegi musée yi ñi nga xamante ni <laughs> mi ngi noonu mbokk internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox di la jël ak seen beneen émission jërë ngeen jëf